alaikum yow yow la Mori Mara Mori Mara ñu bëggoon nga defal ñu benn biir présentation de, de ta personne quoi. salaamaaleykum ñuy seetaan ñëpp di leen nuyu bu baax ginnaaw ba sant yàlla julli sang-sang yi Seydina Mouhamed ñu nuyu kilifa diine kilifa aada di nuyu aussi ñuy seetaan ñëpp ki nekk sa tur ak sa sant di leen gërëm baax yéen tamit mu anak, maaxaan eh, nag tur bi maamouridien la je suis de Kébémer Kébémer laa juddoo fi laa yaroo fi laa jàng aussi tamit ñu fi jógee dem Dakar dafa fa leen defee suñu formation professionnelle di fi liggéey eh, Mory Mara en fait structure eh, la Mory Mara doomu Kébémer la moom ndaw la léppam Kébémer la waaw waaw waaw loolu daal mën na ko résumé ci Mory Mara muy benn doomu Kébémer ba nga xam ne léppam Kébémer la léppam mu jëlaat tamit delloo ko Kébémer dégg boppam waa Kébémer. Mm-hmm. waaw waaw ñu jàng ji tamit ba ñëw tamit suñu liggéey yëpp dafa ko ñëw tamit indi ko si dëkk bi aussi tamit fi ñuy créé tamit ay entreprise te biir dëkk ci biir dëkk bi biñ dëkk créé ko fa créé ay entreprise yi nga xam ne pour jëmmal dëkk bi lu aussi tamit. Mm-hmm. waaw mën naa wax loolu ci Mory d' accord moo di Mara ñun tamit ñu ngi xamal ne ni yow yaa yaa nekk koo xam ne da nga créé benn entreprise comme ni nga ko mujjee waxee nii muy Kébémer TV. en mhm. ah, Kébémer TV am na am ay Kébémer production pour ay ay ay contenu genre yooyu. waaw mais léegi dañoo dégg nii yéen comme genre da ngeen a nekk si benn festival boo leen di préparé mu tudd Kébémer. waaw waaw mais avant festival bi dafa am lu ko jiitu. Mhm. comme ni nga ko waxee euh, bi ñu ñëwee danoo xool euh, Sénégal yëpp. dëkk boo dem am nañ benn chaîne de télé ba nga xam ne si doomu dëkk yëpp suñu génnee fa leen ni la xew sa dëkk ba ñu xool suñu dëkk ñun amuñu ñu nekk ay jeunes nekk ay ndaw ñu ni pourquoi pas suñu créer benn plateforme tudde ko Kébémer TV pour doomi Kébémer yi nga xam ne si nii mhm. Kébémer la dëkk ba nekk bitim réew nekk àll mhm. lu xew si biir Kébémer la ñoom ñu mën kaa yëg

bu benn unité de production bi créé def ay théâtre def ay clip ñu jot see liggéey te ay doom ay caméraman yu bari bari ñu leen si remercier wàlla tamit de passage mhm. tourné bi fi tamit ay clip yu bari ak ay artistes dañ si ne fii si biir caméraman lañ dëkk ak ñu ay rappeur tourné nañ aussi tamit ak ay théâtre parce que bi corona bi commencé tak ñun en tant que ay doomu Kébémer tourné nañ ay théâtre yu bari ay théâtre de sensibilisation ak ay doomu Kébémer yu nekk foofu mhm. yi yooyu si wàllu théâtre

leen wax festival keberap seen festival la. Mhm. nekul euh, euh, Dakar rap nekul Kaolack rap déedéet keberap nan wax pour doomi Kébémer la. Mhm. jusque nag ren dañu ne Kébérap mais teewul tamit Kébémer koo xam ñu bindoo si aar ak cosaan nga xam dafa am ay rappeur am fa ay malaxmaan am fa ay théâtre kat am fa aussi tamit euh, ay artistes yu baree bari dinañ ci invité ñoom ñëpp di leen seen mbir la ñoom ñoo ko moom. waaw ñoom ñoo ko moom ñun ay initiative ñun dañoo dañuy créer rek tout simplement pour teg mais ñoom ñoo koy su taaroo ñoom la taaroo ndax ñoom ñoo ko moom. Euh, festival bi nag au commencement dinañ jël benn jour mais bëgg nañ ko gën a yokk waa ndax ñu ngi ciy liggéey ak ay partenaires suñu partenaires yi ñu ngi ciy liggéey aussi di jéem a xool tamit ñu ngi koy gëm mais comme que temps bi dañoo xaj actuellement nii. su toll dañuy jéem a maintenir 4 avril bi incha allah ñu def festival bi. def benn euh, nuit de concert. biir ci bibliothèque municipale. ak force Ndombo Wane. waaw force Ndombo Wane.

waaw loolu noonu tamit damaa bëgg mu leer tamit pour si pour pour pour ñuy déglu si kaw loolu noonu tamit bari na si aussi tamit ay sponsor mu nekk ay doomi Kébémer yi nga xam ne si tamit ñoom woon na leen te pare nan pour euh, jàpp si festival bi. Mm-hmm. ku si jiitu mooy monsieur le maire. Mm-hmm. maire de la commune de Kébémer ñu ngi koy sant ci ko gërëm parce que tamit euh, yombul parce que su toogee ba ni ay juróomi fan juróom-benn fan moo des nga bëgg a créer festival dem say autorité dem sa maire dëkk tamit. tàllal ko loxo mu def lam man loolu yombul kon ñu ngi ko si sant di ko si gërëm aussi tamit waaw monsieur le maire ñu ngi gërëm bu baax baax si appui bi si kaw loolu tamit ñu ngi ciy jaaree tamit di woo yeneen autorités yëpp di leen wax ñun am seen numéro woon leen ñun amu ko seen numéro tamit te te mu amul accès si ñoom ñu ngi leen di tàllal loxo ñu leen wax ak ñu leen wax festival Kébémer pour Kébémer la pour doomi Kébémer la te ndombal tànk yi ngeen yor doomi Kébémer ñun ñoo leen fa teg. li ngeen jot pour Kébémer la kon doomi Kébémer tamit ak jeunesse Kébémer ñu ngi leen a tàllal seen loxo ngeen ñëw jàppale ñu mën a promouvoir aussi tamit jeunesse bi. si culture euh, euh, aussi tamit euh, jàppale aussi tamit ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu si wàllu cosaan ak aada ak culture. Mhm. ñu yoon loxo yooyu ñëpp monsieur Ousmane Cissé monsieur Sidi Bara Fall yooyu ñëpp ñu ngi leen loxo bu baax a baax a baax a baax bu Fadja Diagne aussi ñu ngi leen si tàllal loxo aussi tamit ak autorité Kébémer yëpp. di leen wax ay doomu Kébémer ñoom ñoo ko taxawal di jàpp si si aussi tamit euh, am na ay am na ay sponsor yi nga xam ne si nii boo ba tey tamit ñoom ba ñu koy yëgee comme seen jëf ku si jiitu muy suñu grand àndu KEPS FM l'infatigable àndu parce que euh, bibliothèque municipale boobu ko jël innové ko defaraat ko ba mu rafet macha allah pour doomi Kébémer yi di mën a di am fu ñuy organiser. ñu ko siy remercier de partage ndax boobu ba tey euh, benn activité amagul ñu si woowaale jeunes yi tamit di leen wax bibliothèque municipale bu Kébémer def na ko ba mu rafet macha allah ba mën a jël mën mën fa def lu ne ñu ngi leen si wax pour yéen ñëpp ngeen ñëw jàpp si xam seen yëf la aussi tamit te incha allah la kat su la ñëwee di ngeen gis ñu bëri ba mel su neexee suñu borom waaw ñu ñu ñu ngi leen si wooyee ñëpp si kaw loolu ñu ngi remercier KEPS FM ak àndu te remercier aussi tamit bibliothèque municipale aussi tamit. muy CREPS bi ñu ngi remercier aussi tamit CREPS vision sama xarit Pape Wali moom it mu nekk doomu Kébémer nekk ndaw bu engagé wu ba nga xam dafa tijji structure tuddee ko vision pour jàppale ndaw yi Kébémer yi waaw comme ni Kébémer TV def mu def ko CREPS vision def ko ñu ngi koy woowee tamit ndaw yi Kébémer mooy ngeen ñëw jàpp ci développement Kébémer ndax ñu ñëw moom Kébémer Kébémer su développé ñun la développé la kon ñu ngi leen woo yéen ñëpp ngeen di créer seen entreprise fii ci biir dëkk bi aussi tamit maa ngi remercier Ibrahima Keita Ibou Keita l'infatigable borom globalfrench.com moom xam nañ Tamba la dëkk mais dafa ñëw Kébémer def ko miifi boppam engage wu ban ko bu miitee boppam Kébémer jël société créé ko biir Kébémer ñu ngi ko si remercier di ko sant bu baax a baax si kaw loolu tamit ñu moom du Mamadou Thiam Ndiaye Mamadou Thiam Ndiaye si festival bi moom see am ñaari wàll desee am wàll en tant que Mamadou Thiam Ndiaye bokk Kébémer TV en tant que Mamadou Thiam Ndiaye aussi tamit yow société tamit moom biir Kébémer bu tudd Balla TV mooy bokk si sponsor yi moom dafa bokk Kébémer TV ba pare bokk Balla TV mu am si ñaari wàll moom it. Mori Mara Vision tamit moom it de passage ñu ngi ko si sant tamit ak aussi tamit waa doomi Kébémer yu naan From Kébémer ñoom ñu nekk ay jeunes yor association nekk biir Kébémer tuddee sa bopp From Kébémer nekk ay ndaw tamit di def si développement Kébémer ñoom ñu ngi siy jàpp bu baax a baax. ñu wax tamit ndawi Kébémer yi yéen ñëpp ngeen di région tamit ay ndaw mel ni forum Kébémer pour développement Kébémer waaw ñu ngi leen si ñaaxaale bu baax a baax a baax a baax ñoom ñu ngi si jàpp bu baax a baax si kaw loolu ñu ngi si jaaraale tamit di woo doomu Kébémer yëpp yor ay entreprise ci leen festival Kébémer ab seen festival la bëgg na ngeen ñëw ngeen jàpp si bu baax a baax a baax soo leen yéree tamit la nga xam ne da ngeen kaa bëgg a wànnele yéen ñëw jàpp si ñu wànnele leen ko ndax festival Kébémer jël na tam bu buntum euh, ñëpp yëpp doomu Kébémer waaw ndax ñu ñëpp kenn développement Kébémer moo ñu intéressé te yaakaar naa suñ ko bëggee ñu ñëpp dañu war a mën a jàppalante ba kenn ku nekk développé ci côté bi nga nekk si kaw loolu ñu ngi si woo sponsor yëpp di leen loxo aussi tamit ngeen ñëw jàpp si bis bi aussi tamit. Mori mhm. ak comme ni ngay expliqué nii yëpp si wàllu li wàllu li soxal Kébé Rap. Mhm. léegi dañoo doon laajte yéen lan moo lan moo nekk seen objectif yi am Kébé Rap boo leen jógee fii nii.

y a festival avant am jour am après festival mais après festival bi les siy que na trop que am na yenn yeneen de Kébémer pourquoi pas chaque samedi chaque mois le mois chaque mois premier samedi bi si ñu concert que bëgg na loolu noonu ñu euh, municipalité bi ak ensemble donc am après. base de données boobu noonu euh, dañu permettre aussi tamit ñu xam bu ëllëgee kan ak kan mooy rappeur ndax am na benn compétition boo bëgg nañ ko organiser après festival bi aussi tamit mu nekk compétition en ligne ba nga xam ne si nii euh, euh, ku ko gagné ma permettre tamit ma permettre ko ku ku ku ku gagné na la may production clip may la production son waaw mu nekk benn benn compétition en ligne lay doon Kébémer TV moom moo koy def ak ANSEC aussi tamit ba tey force number one

genre parrainage la mais ça ne veut pas dire que ku amul ñaari son doo joué boobaa wala ku amul ñaari son boo léegi suñu def leneen doo si bokk déedéet ñi amul ñaari son ak ñi nga xam ay ñu bees lan ñi nga xam amuñu goon son ñoom ñu ñun ñoo leen war a gën a mën a jàppale ñoom ñoom ñoom moom première partie bi muy boo yi nga xam peut être benn son lan am ak ñi nga xam amuñu son ñoom ñoom moom première partie bi ndax ñoom ay ñooy ñooy ñoom ñooy suñu yaakaar kon ndox ñoom da leen a war a jàppale bu baax a baax a baax a baax a baax bu baax a baax de telle sorte ñoom ñoom moom première partie bi aussi tamit Euh, su ñu demee ba bi mooy compétition yi boobaa moom amul ku am son ak ku amul son compétition la mooy pour dàqarat boobaa yow la ñuy produire yow la ñuy may clip yow la ñuy may ay son waaw loolu tamit il faut que ma préciser ko kon gars yi mu ngi leen inscrire si si si si si si si kii bi aussi si numéro yooyu noonu nekk si barre d'écran bi 24 euh, heures avant concert bi ku inscrire tamit na la envoyé tamit texto pour tamit jox tamit yeneen gars yi tamit dañuy bañ boo jour yi tamit nga ñëw naan non damaa weesu na ku bëgg a ku bëgg a jouer jour boobu festival la defal ni say morom def booba tey gars yi ñu ngi inscrire bu baax ñu ngi leen si remercier si son yeeg image yi ah leen comme ñoom ndax bëgguñu ngeen naan non jour yi nga ñëw yéegu nga naan non pourtant yéegu ndax dangaa inscrire moom moo tax bëgguñu loolu noonu ñu ngi ci leen di si wooyee ñëpp leen si ñaan muy nga ñëw inscrire def comme noonu euh, inscription yi numéro yaa ngi noonu 244 50 44 par whatsapp par aussi par mail mail euh, euh, festival keberat arobase gmail point

te sponsor bu mu am dañ continuer liggéey ak yow après ak avant ak après festival bi incha allah su suñ différentes plateformes yi ñu am yëpp ñu leen si woo aussi di di remercier aussi tamit partenaires yi. leen ñu ngi leen sant bu baax leen wax aussi tamit seen jàpp si bis bi am na solo trop ndax su nekkoon yéen tun amaana tun am mën a am benn doole bu baax a baax a baax kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax ndax li ngeen def Kébémer moo ko tax euh, ay doomu Kébémer yu am jom ngeen. mun ngeen wax Kébémer bee ngeen dëkk tout simplement da ngay nekk Dakar fi nekk li ngeen nekk rek mais teewul tamit li a ngi koy a baax euh, euh, yi gën a dox liggéey bi gën a bàttali aussi tamit ci woo tamit doomu yëpp tamit si bi tamit di leen wax bis bi seen bis la pour ngeen ñëw jàpp si di gërëm aussi tamit autorités yi si jotagul jàpp ak ñi tàllal seen loxo maire aussi tamit ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax Force Ndoumba Wane Kébémer TV ñu ngi remercier ñëpp ñu ngi remercier ñëpp te ni bañ lim ay tur ndax ku lim juum bis bi ñu si jàpp bari na mais ñu ngi leen sant